fen dong la diw deewul fen la gis nga loolu baaxul tàggi nit ti nit ka deewul nga dégg ko wax ko yow ma ko wax dangaa mën a fen te wóolu nun mu ko si yàlla nee na ñuy fen safara lañ jëm buñ ko bàyyiwul ba dee rek safara lañ jëm kon nag ñuy tàggi nit naan bas bas jaxate dee jaxati génne deewuma loolu koy doy na gàcce waaye nag le problème mooy kii wax loolu du feeñ doo xam kan la da koy def ci net bi rek a ngay dégg ay sëñ Mansour tàgge nañ ko fi maam Alaaji nañ ko fi ah? loolu yàgg na fi tàgge nañ fi ma ab tàgge nañ fi sëñ Mansour ku ci ne tàgge la loolu fi la nekk ay fen rek rek la fen rek la fen rek ndaw ñi nañ sax ci njub te wut xam-xam loolu daal bu dee seen alal ndax leen di yomb waxoon naa leen fii nag ne leen ndaw ñi aye ca ba ñu gañee Coupe d'Afrique wax naa ko mu ko ko weddi génne ko wax naa leen ne ndaw ñi ñoo aye ku yebu bàyyi ndaw ñi mag ñi mag mag gis nga mag dafa jeexal mag na jël kurusam ñaan ndax lam waroon def yëpp def na ko léegi nag ndaw moo war a taxaw nag def li mu war a def waaye bu mag jeexalee bëgg a alawtino ndaw du sotti dund sa waay dund sa dund sa jamono dund sa jamono baay dund sa jamono ndey dund jamono keneen mënul nekk da ngay dund sa jamono bàyyi keneen mu dund jamono looluy àdduna mais ndaw ñi gis nga li ma neex mooy lii ñuy def yëpp ay tëj kii de yooyu yëpp amul solo yàlla ki mu war a fal président xamuñu ko yàlla du wax ne waxuwa fi kulli xaw ma nu mu tuddati waxuwa eh, ci boppam yàlla ci boppam moom ay mbiram daf ko téye waxuwa déedéet ok waay kulla yawmin huwa xam nga am na ko sawaroon bu ko def ay tiktok sama gars yi ala yi mais la naroon kulla yawmin huwa fi shay'in ah moom tiktok rek tiktok rek Iran moo wax tak tak tak ah. moom daal na na dagg li ma wax rek mu dem waaye nag dabaatal naa ko bul indi li dagg la la la neex nga yóbbu ko bàyyi waaw kulla yawmin huwa fii sha'nin moom ay ay mbiram noonu la yàlla mbiram da koo programme bis bu ne ak la mu ne xoolal dama bëgg ngeen xam leen président Senghor dafa desel nguuram may ab Diouf am na wala am Abdou Diouf Ablaye Wade ko gañe yónni ko mu dem te kenn foogu loon ne Ablaye Wade dana gañe mm-hmm. Ablaye Wade Macky Sall la ko gañe kenn mos forme parti ren mu gagné ren kenn musul foog ne Macky Macky moom ay Ousmane Tanor ay ñangam nangam ñu li ñu foog ak an waaw Moustapha Niass dans sox ñooñu la ñu foog Macky Sall waaye Macky na xam ne yàlla joojaa fi ne yàlla jooju du fi jóg yàlla jooju du fi jóg kulla yawmin huwa huwa fi sha'ni bés bu ne ak lay programme am nañ ko xam su ko defee allahumma maalikal mulki tuuti mulka man tasha wa tansiul mulka man tasha wa tu'izu man tasha wa tuzilu man tasha bi yadikal xayr innaka ala kulli shay'in qadir yàlla yor lépp gis nga coow lii yëpp jaru ko ku yebu daa rafet ci moom laa naaj naaj ci ci naaj de bu ëllëgee yàlla fal koo neex su falee koo neex da nga perdre soo ci rafetee nag ku ñëw rek nga ànd ak moom yow yaa sa bopp nekkal sa bopp nekkal say bëgg-bëgg rek waaye li ma gis ñuy eh, muy yor xale yee fi ne xale yee fi ne suñu ko nangoo ñoo fi ne suñu ko nangoon ñoo fi waaye waaye deux mille vingt lan deux mille deux c'est pour xale yi deux mille vingt deux xale yi la ma ne suñ yeboon na ko rek deux mille vingt booy yi la goos yi la xale yi la moom kay nañ am jom rek am fulla am fayda am taxawaay nañ am fulla am fayda am taxawaay bu ñu dem ci gannaaw kenn nañu rangé wu rek am fulla am fayda loolu daal mooy mooy ndimbal waaye xale yi moom ah, Coupe d'Afrique dañ dem ñu doon ñaan sëriñ si doon ñaan sëriñ seen dara nangu dara nangu nekk fi naan way bu soobee yàlla kay wax waxu waaw duñ dem sax quart de finale far ñu dem final indi coupe bi ñuy demaat match ñu ne ah mais dañ ko foroon ni nga rek ñu ñëwaat ñafaat leen ñii waaye léegi luñ bëgg di léegi léegi nañ wax nañ ko for gis nga mbir da nga ciy noppalu rek da nga ciy noppalu rek ko defee nga féex da ci ciy noppalu féex yàlla noppi na ba pare ya xew-xew yàllaa ko ku xew jeex na alaaji Mansour Mbaye xam ngeen ko wala déet alaaji Mansour Mbaye dafa am benn bés Bombardier defe naa la non astaghfirullah du Bombardier Tyson ak kan ak Mor Fadam Tyson ak Mor Fadam dañoo daje Gàmbi ñu ne ah bëre fa ñu ne bëre bi leerul nee nañ ko nañ ko dóoraat Sénégal bi ko bi ko bi ko Tyson dóoree bañ <laughs> bañ baa dali fële mais lool ci xam nga lu Alaaji Mansour wax mbay wax daf na cam kay nañ ko baag borom ba mu ba mu kay nañ ko bàyyi borom ba mu fégal mm-hmm. booba Tyson kay aye na waaye ba mu fégalee mu ngoog jeexal na mu ngoog rek la adduna noonu la addu ku ayam jeexul nañ ko bàyyi mu aye rek nit ku ne ayam lay nekk su ayam waaye gis nga di jëm a njëkkanteeg di buux nit ak di uh, fakasal nit ak di wane yooyu yëpp ay tappale la yow daal nangul ni kii yee fi su jeexalee yaa xam yàlla xam nangul rek ni moo fi soo nangoo ne moo fi rek loolu doy na may soo lànkee ne nekku fi nag loolu doyul may waaw bu ko defee man daal loolu laa ci xam xale yi nañu góorgóorlu rek bu ñu rusloo kenn nañu góorgóorlu seeni nawle rek a fi ne di dem ku ngeen mën a dajel Tunisie ak Maroc ak Gambie ak fu ngeen mën a daj ku ngeen dajel rek jàpp leen koy gañe jàpp leen rek ni dangeen ngeen di gañe jeex na Hollande moo Qatar ak yëpp yem nañ dóor rek jàpp door jàll bu ñu final dóor waaye buñ buñ yàccaaral na naan yii équipe bi mag équipe bu mag la bu fi demee dañuy gañ ah nañ fexe am kii rek yooyu fexe am kii du wax ngeen xale lañu ndaw ngeen ndaw lañu ñuy wut ngeen di wut ah onze onze jeex na amul amul amul ragal ndaw du ragal ndaw du triste ndaw du ragal ndaw du triste mag muy triste ñuy nekk fii di triste rek di yërëmtul loolu affaire mag la mag a xamatul fu mu jëm ti mbir mi dal na ci kaw mu triste xale xam na fu mu jëm mbir mi dal ci kaw mu bëmax ko mu daanu mu continuer dangaa dangaa mbëkk àdduna da ngay mbëkk mais doo doo doo seetaan triste ndaw moomu ko maga ko moom trist ndaw moomu ko maga ko moom da ngay bàyyi mag ñuy triste yow nga dem ko defee góorgóorlu leen rek xale yëpp am ñi ne ci mairie beeg ah moom daal mag ñi daal